mu des beneen boo xam ni sama nammeel la waaye am naa yaakaar ni ni moom maye ñaar yi dana ma ko may muy xalifa bu baax ba bu tedd ba sëñ Muniiru Njëgël muy ñëw ba ma dem ziar nam naa ko loolu Njëgël kilifa bu baax la kilifa bu woyof la euh, kàddu mbégte bi mooy euh, lii nga xam ne moom la ma sama jarbaat yi sama sëj yi jóge Ndar jóge Casamance jóge Kolda jóge fu nekk Sénégal ñu ni le 23 décembre bii dañuy def délégation dem ziar yi suñu nijaay suñu maam suñu papa Youssouf Faye ñu ñoo defal ma ko tey sama xol sedd ci trop ci njiitu nag seen mag woyof lool muy procureur euh, Abdou Khadre Diop ñoom tam loolu di mbégte bu rëy ci man beneen bi it mooy di gërëm waa kër gi li ko doolee ci soxna mi nga xam ne mooy kilifa bi mu doon kilifa bu woyof dara dérangé wu ko dëgg yàlla dara dérangé ko su fi xalé yi di toog ba 1h du matin di ataaya lolu dara taw di ci teg Mansour mi nga xamni moy sen mak mom tam woyof lool ba bo ñëwee ci kër gi da nga yaakaani ni Pape Faye moo wala Cheikh moko mak wala keneen moko mak mag te loolu lépp woyofam rek la diko ñaan mom tam yalla nako yalla moy muy gudd fan ka ay gradam ba ñu daal waxe général masou sax nan tuddu nan ko def yàlla doo général Mansour di kontan trop bu baax ci roxay mi nga xamni moy jigeenam te moom tam ëmb xale yi loo xëyee yére bu rafet dafa ne ne am sàmb la ko war a solal wala nabu war a la ko war a solal wala yaayam moom tam aussi yàlla na koy yàlla may bésu jàmm yàlla may ko doom bi muy uuf yàlla ko yàlla may ci euh, kontaan trop ci waa koñ bi yëpp nag ndax euh, wax dëgg yàlla man de xaw ma lu ma defal koñ bi waaye ñoom ñëpp dañ ma jox cër ah xëy na peut-être que bu nekk am na tuddal diw ku melni soxna ndey fama jaay mo daf ma def nijaayam ndey xuja bu nu woré ba kéro ba muy jeex bëss bu né dañ ma indi ñaari façon jus du tok ben wér te toggalu ma lu baax indi ma fi di gëreum bu baax di ñaan yalla mom tam ay doomam yalla na yàlla dafa len promotion bu baax ak wa kër jobel yépp li ko Tafa usunu ak Kader ñoom yépp di gëreum it ndey Yaasin mi nga xamni moy mooy rakku te nek ci kër gi

ñu jaaxle kan mooy doon ndeyu kër gi mbay ñëw daal taxaw taxawaay boobu loolu tax mbay moom tamit yàlla na ko yàlla defal jàmm sama sët yi nga xam dañ maa bëgg ba xër ci man maman mbay nag ni toog ci man sax ba léegi léegi bi noonu la papa mel ci man a daaw da seet ñoom tamit yàlla na leen yàlla defal jàmm di gërëm yaa awa soxna Fafay di gërëm Maguette boobu di gërëm nag sama mbokk yi fi teew yëpp euh, bu ma waxee Ndeye Khoudia Faye mi ajaratu Ndeye tudd naa ñoom ñëpp mais ñoom ñëpp benn maam la am muy Ali Fatma Ali Fatma eh, moo jur tabara tabara jur ndeela mbay jur Fatou Mbay képp ko sant cuun ndeelaalu ji képp sant seen Fatou Mbay ak ñun ñu sant fay kon bu ma nee Ndeye Khoudia rek gërëm naa ñoom ñëpp ci seen teewaay eh, man nag dama li may sant yàlla surtout aussi mooy bareyaan na nit bu ko silmaxa mësaana dal ay moroomam boddi ko temps bi ma demee école de ça 1970 si ma xëyam fa dajal kii dafa la naan xamatuma sax ban fan fan laa askono ndax day nekk xale bu tuuti silmaxa ñu yëkkati ko dem jox ko benn silmaxa ni ko jàngal ko yarwaan waaye man ba ma dalee ba léegi famille bi yëpp danuma bu dee affection bu nu amoon ci man dañ koy yokk bu dee responsabilité dañ koy yokk dañuy yaakaar ni sax ni maa leen mag te maa ci gën a tuuti ñii wër ma ñëpp ñoo mag tabaarkalla muy Fay di Badara waaye ñoom ñëpp dañ ma jox cër bu mel noonu loolu nag jox ma courage ba man tam lépp loo xam ne war naa ko def ci àdduna ma koy moytu ak yooyu euh, sëñ Mor sëñ Mor euh, wali yu juum keroog ba ma sama papa dama nga seet sa papa El Hadj Ahmed Ndiéguène ma ñëw seet si ko fekk ko fii ci garab gi mu toog ma ne ko man ne sama papa El Hadj Ibrahima Faye moom ma waxoon dan ma indi fii inaas ma fa war fee jàngale mu ne naa ñëw nuyu si la ndax bi ñu fi affecté sama mag médecin Ousseynou Faye daf ko gàddu ba ci yow indi la ko mun ma ah alaaj naa ma fay de wàcc na ñu toog di waxtaan mu may laaj muy jànge braille bi may expliqué ko fekk boobu sëñ Cissé mi ngi toog sëñ Cissé ni ko lii braille bii muy wax bi ma nekkee Égypte daan naa gis di ko jànge foofu ba tudd ay paa euh, euh, Taha Ousseyn ak yooyu ba may dem mu ne ma waaw mënoo dëkk ak man fii donc ah man nag dañ ma jox logement ci école bi na mënuma ma dëkkal ak man fii ma ne teg parce que ma ne ko waa baax na boobu lii la gisoon loolu moo tax comme ni ma koy waxee lépp lu ma jur rek féetale naa leen foofu lépp lu ma jur nag féetale naa leen foofu ñu jox ma mën a cër xam nga wax nga léegi responsabilité bi ñu jox Pape waaye man sëñ mu ne dox xam nga lu ma wax dafa ma ni bépp gan buy ñëw ci salle bi muy président de la république buut lu ne bëgg naa nga ñëw toog ci biir saal bi comme saa nu xam ne ci njaboot bi nga bokk ndax nit day am protection mais loolu cër la cër la ah yow sëñ Mor nga def ci sama njaboot loo xam ni dafa sa yàlla rek moo la ko mën a fay ndax man dama mësoon a tiit naan xale yi actuellement gens yi yu kenn xam te nag wax dëgg yàlla nit mënul porter handicap ci xolam ba pare am njaboot di ko jàll loolu dafa mësoon def problème. mais yàlla baaxe ma ma amee njaboot kër maam alaaji yàlla baaxe ma njaboot googu nekk seen seen loxo yéen njëgal Cheikh Tidiane bu toog di may waxee ay sëf yu ak yooyu damay waaru ci yàlla ndax gis naa ñu ko mag fuuf te àgg na foofu Pape Faye nii dégg nga responsabilité bi ñu ko jox yëkkati cachet teg ci loxo dégg nga ak ki ma li ma gën a neex nag mooy sama disket bële sama caaf bi nga xam ni tey jii waroon na ko fekk muy tubay ak kenn xamul te sëñ Mor wëlbati na ko ba day muuru du manqué waxtu. kon kon yow dégg nga mënu ma la fay mënu ma la fay yàlla na la yàlla may gudd fan may la wér may la leer mbooloo mi nga àndal nag ah wanoo leen seen bopp de yàlla nga leen wan nga leen wan alaaj Ahmed Ndiéguène nga leen wan ci dëgg nga ñoom loolu moom moo tax ñu tudd nii loolu tey ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla na nga yàgg ak sa mbooloo yàlla na nga yàgg ak sa mbooloo yàlla na nga na ma noo fay ah non mais yéen tam na ko mooy na na tey tudd laa ah kon waa kon nag maa ngi lay nuyu ma de yaa man daba rek laay si man bu may wax ci ñoom daba rek laay wax bu may wax ci góor ñi mañ soor laay wax man euh, xaw ma woon ne dinaa am Pape Faye wala Nabou wala keneen kon samay doom Mansour Seck mii moom laay dëkk am doom. sama doom bu jigéen daba sekk la moom laa jëkk am ci doom sama beneen doom baaba la ñoom laa jëkk am ci doom loo tax fa ma leen teg tegu ma fa Pape Faye tegu ma fa Nabou tegu ma fa Cheikh Tidiane ndax bu neexoon yàlla ma denc seen yaay yem ci ñett ñooñoom mo fekk ñu ma ko fekk kon ñooñu ñooy sama doom loolu tamit bu ma leen tuddee rek tudd naa ñeneen ñi sees ñëpp alors wax dëgg yàlla di kontaan trop di ñaan nag sëñ Mor sama mag bu naan euh, Lamine Faye dafa nekkoon lool wóolare ci gàmmu ji ndeysaan dafa def accident ba am fracture fémur booba ba léegi muy hôpital mais médecin bi dig na ma allah suba lañ koy opéré may ñaan nag ñu ko yàlla ko yàlla muccal ba mu delluwaat ci sa bopp waaw daal laa amoon li may wax di kontaan trop di ñaan yàlla wax yàlla seen moor moom doy ma ci waxtaan bi rek ma kañ ngay ñibbi nag mais bëggaan naa beneen waxtaan bi la ma jox ci jànkat tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم kàddu yi mooy yëkkati kàddu cant la ak kàddu ngërëm jëmale ko ci Youssou Faye parce que bu ñu nee jiw mbaax na na ñuy wax ndax mbokk ñoo ko waaye ba may ba may teg si gërëm bi may gërëm yuuf ñoo bëggoon nuyoo nuyoo bi dama si gisal sëñ Mor tabaar fa kàll yàgg naa dégg sa tur wax dama nekk Dakar jàpp benn rajo ñu teg si ngay waxtaan ma ni ah ma daan dégg ni moo nekk nii bii non seulement c'est intellectuel c'est un parce que polyglotte mooy tabax na kàlla ku mën a làkk kàllaama yu baree bare te di ko wax ci kàllaama yu set wecc ma ni il est scientifique parce que day argumenté argument scientifique la day indi indil la argument philosophique indil la alxuraan ma ne kii kay lii moo tax sama turandoo bi muy Cheikh Tidiane nii def évolution bu mag bii mu def tabax fa kàll ba nga xam ne su ma ñëwee Thiès dama ko wax Tidiane kaay jiite ma wóor na ñëpp ci kër su ma ñibbi dama leen dama leen wooyu Cheikh Tidiane mu ñëw ñaanal ma yoon sedd yoon mu jàpp ah ba ma la déggee kon ci rajo bi ma ne ah kii tey nag moom moo waral lii ndax li ñuy wax kéwal tëb doom ja waaye sëñ bu xàlle yoon wala olof njaay di wax nii njay ñay buy xàll ba doom yaa tax kon nag sëñ moor maa ngi lay sant di la gërëm di yokk ci cant di la ñu fay cant ndax transformation de qualité yi nga dugal sërëm yàlla na la yàlla sax seeni kanam def lay mag yokk mën-mën mi ak kàttan gi ak xam-xam ah eh, yuusu nag dafa nekk kenn ci ñun parce que bu may julli léegi géey ci saal maa ngi dégg muy wax ni nan ko jox cër moo gën a tuuti ci jataay bi mais nan ko jox cëru mag cëru kilifa boo gisee loolu boo amee ay mag lu wàññeeku jël kilifteef jox la ko dafa fekk dafa am ay yu rafet ay yu rafet yu gis yow yuusu

tu seras atteint de cécité dootoo gis et ñu téléphoné nu de Dakar sama papa wax loolu muy jooyoo di jooyoo mel ni pour nekk ci dëkk keroog bu yuusee wàcc si waxuma la kër gi rek waaye suñu xarit yi daal àndal kon ba yëpp ñu nekk au courant de la nouvelle nañu ñëw di yóbboo di jooyoo di métti mais yuusu yedd na ne lu ne dal leen lii ndogal la yàlla ma ko teg yàlla mi ma ko teg mën na ma indil leneen lu ko remplace muy koo xam ne man daf ma frappé ba dégg na ma koy fàttali ma ne ko keroog gëm yàlla gi nga gëm yàlla moom leen yàlla fayee parce que Sénégal ñi fi jëkk jàng braille ci nga bokk waaye école universitaire bi moo ko fi parce que moo dox ay jéego ba am ay coopérant dent ñu ne ko bu leen seen état mayee teere ñu tabaxal leen école fa tabarakalla fa tabarakalla universitaire bi ku nekk forme nañ ko fi ay ingénieur ay

donc yooyu qualité su ma ko doon lim na fii fanaan te dama war a gàttal moo tax nu jël ko def ko suñu mag tawar fa kàlla xelam day nu lool ku ci am problème ci prends téléphone boo mënulee ñëw Thiès consulté ko mu teg la si yoon yoon woowu boo si jaaree gis ci jàmm ak salaam kon nag Youssou ñu ngi lay sant di la seedeel fii sa biir kër sa biir gox ñu bokk sa kanami xarit kay ñun day du ñuy ñaan saa yu tey mooy yàlla bàyyi la suñu kanam <coughs> ah Youssou nag mënuñu ko sant fàtte Fama Dia parce que loolu góor ci këram képp ku fa yaatu muy xarit muy mbokk <coughs> jabar jaar moo tax nga yaatu faama nag tawaat ko kàll moom bu nu ñëwee dana nu toppatoo sunu dara du may bëgg na yu bëgg na ay mbokkam yàlla na ko yàlla mañ gudd fan coono ji mu daj fii ci yaayam daj ko ci wajuram daj ko ci yuus ak ci doomam yii yàlla na ko yàlla fekk yàlla dem ba doomam yi yóbbu ko màkk parce que jullit bu nekk loolu nga gën a bëgg ci bëgg-bëgg kon nag euh, maa ngi yëm foofu di leen gërëm di leen sant di sant aussi xale yi si kër yi ndax jox la lu cër bu nu fi ñëwee ku nekk day xataraayu pour mettre nous dans de bonnes conditions loo soxla ku nekk dañ ciy doo comme ay bàyyi ba ba ñu xale yi fi nekk ci kër yi fi sëy yàlla na yàlla dëgëral seen sëy parce seen njaboot ñi fi amagul jëkkër yàlla na leen yàlla may jëkkër eh, te nag mu ci bi ci gën a bi ci war a gën a gaaw mooy sama doom jële di am sama séddoo ah non léegi mu wax yëpp te néeg moom sawarul am jëkkër xam ci xale yi tubaab yi doon bokk kon maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam sëñ Mor jërëjëf dinaa gën a yow pour xamante ak yow ndax yow jar ngaa ko sant yàlla bu mu bari man li mooy diine rek laay sant yàlla sama ba yaay sama yaay dafa teel a dee may seen ndey dana taxawal léegi ma leen ndey di ko sant yàlla nag sama ngóor yàlla may sant yàlla nag ci diine ji yàlla def si moom wax naa la ko léegi suñu kër kër diine la kon moo mbay ma di kaw la boo sëriñ Babacar dana ko sant góor di ba nga xam ba ko daan ñu juddu si nag yaru si àddina nag changé trop ba ko ni sa fit dem di xale lu tey waaye bésu tey dama sant bu baree baree baree baree santaale sama waay ndax lii rek lu nu bëggoon si ñun lu nu si doxee ba suñuy doom dox si ñu sant yàlla ba mu bari ndax jullit nag قالوا نيجي بره مصر اكلوا بره مصر بتاع منها إيه كتير يا سعيده ماما بخلم ده دو شو نقول انا يلا لا دما ركبت انا اشتغل لي يوسف وخيوك اكيد يعني سوا كذب دما ركبت انا ما اقول لك ما اقول لك بعث من بعث توخم خامسة واي بابا يفهم يا يفهم بني دولي ñoo ne ku njëkk ko ñoo ne ku njëkk yaatal bokku ñëw dox si ba xale yi seen bërki déngoo yi ñëpp dox si fu ma toll nag man damay sant yàlla ñëpp xam nañ ko si xam man diine rek laa bëgg yàlla rek laa bëgg yàlla rek laa bëgg ak yeneen dëkk li maam yi bàyyi woon fii nag moom laa fas yéene di ko doxal ba ba may leen di fekk du si samay sant di sant di sant saa yu naan bu baree baree bare ndax àddina sant na trop xale yu ndaw di toog nii nga ragal la leen def nii mën na la fi yàlla topp nag sa gannaaw rek di sàkku ñaan ma baag sama njaboot macha allah. jërëjëf moom. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ginnaaw ba ñu sant yàlla di jëli di sant bu tedd bi yàlla Muhammad di gërëm Serigne suñu way ji di ñaanal Serigne bu ngeen dee yàlla fi yàgg di di ñaanal Serigne bu ngeen dee yàlla fi yàgg di Serigne bu ngeen dee yàlla fi yàgg di wax ji nag waxi seet la ndax way ji la ñun ñu wax waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo gën a jegante bu ñu waxee ci lay gën a dëgg damay dëggal nah, di sama papa wax ndax nee nañ du tëb doom ja bët ankay kéwal dina tëb doom ja bët bi ma juddoo ci kër fi laa juddoo fi laa yow fi laa bi ma ba gis ni sama premier problème kan moo may yar ak nan laay fexe ba dem ci yoon bi ma si dee gis ni ma fi jiitu muy jow dama baawa toxuñu naañu sàccu abbuñu fenn dama ne force damay baax ndax ñii yoon wi ñu dem ñaar ñii ñoo leen yàq ba ñu tegu ci yoon wi kon man bu ma juddoo def leneen bokk ma fi koñ bi li muy rëy yëpp waa di njëkk a sol service buy jar quinze mille francs yow moom koy jëndal koñ bi li muy rëy yëpp maa fi njëkk a yor ordinateur portable daba moo dégg ba ma yor jour bi ma njëkkee fayal bu salaire dama doon xulóom daba daf maa woo ba ma ñëw joxal lii sa jabar joxal lii sama yaay ma ne waa ah, kii mooy kan sama salaire ma liggéey ko maa ma defal lii dafay day xew ñu wóoy jour nekk mission dara manqué ne ci kër gi ñu ana Pape Faye man waa lu xew booba ñu ngi may woon yoon di ma teg ci yoon pour xamal ma ni ëllëg dama war a jiite tey bu ma demee ba ay responsabilité ay nit jox ma ko du question maa tax liggéey ci mbedd déedéet suñu waa kër ñoom njëkk a jiital te ñoom ñett la jour bi ma amee doom ak zaama bi sama jabar nekk en état li ma koy njëkk a wax mooy tuddeewu ma ko bàyyi déedéet tuddeewu ma ko sëñ déedéet tuddeewu ma ko xarit bi ma juddoo dama fekk sama papa ak sama yaay seen lépp dañoo bëgg suñu diggante ñu ratax ba bu ñu dee taal doom ji bu dee góor jour la jour bu dee jigéen dabale jour parce que Cheikh Tidiane mii laa billaahi ngoon bi sama papa ak nagu jóg di def délégation bi ma fekk ci néeg ba di ma wax mbébét boobu pour ma def ko damaa yëkkati kayit extrait de naissance ndax man sama doom bu juddoo ci ngoon bi laa koy dem déclaré ni leen mi ngi nii déclaré ko tuddee naa ko jour ba pare xanaa ñu tibb ci ndox bi sëñ bi ñett ñi Guru anak yai acce bi ma jox ko ne def ci joy doom bi ma jox mo rek mo non la def def nañ ci man loo xamante ni day ba def ko ci man ndax éducation ku ma def ci yow desale ko la dara te éducation du jël def dóor ngeen def du woo nit waxal moom déedéet da def muy teg bëtam te li ñuy def maa ngi teg sama bët muy lu baax dama ciy farat par te chaque jour bu ma neexee dama naan dama leen di raw du concurrence bi damaa gis ñu def lu baax ñun ñëpp teg ci seen bët te ci nekk bëgg nga lu baax moo tax ma ciy teg sama bët pour fexe leen a ñëpp dañ naan yàlla naa yow sax leen liggéey man damay ñaan yóbbu leen ñoom maam xam naa fu ma leen yóbbu yóbbu naa faama